léeg-léeg seytaane day jéem a tàggali doomu yàlla yi suñu topp Jésus daf ñuy xiir ci lu mel ni xaalis ay yére tox jëf yu ñaaw ak sàngara saytaani yi daf ñuy gëmloo ni yooyu moo ëpp solo borom bi di ñu gëmloo ni loolu moo ñuy jox dund gu jeex jeex ak dund gu neex saytaane du waxkatu dëgg daf ñuy jaxase di ñu dummóoyuloo yàlla xel bu sell bi moo ñuy aar suñu gëmee Jésus te topp ko